bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin alhamdulilahi lazi xalaqa kulla cheyin wa atqana kulla cheyin xalaqa insha nafa xabda wa insha darra alhamdulilahi lazi xalaqa alkawna bi akmalih wa alima al ashya xabla alkawni man jaala almuxtaara nuura alkawni wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbi wa xayra xadimihi muhammad ibni abibillahi ahmadul mbakiyi wa ummatihi wa sallama taslima mbokki julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di fas yéene waxtaan ak yéen ci xam-xamu fëlek mooy xam-xamu biddiw te mooy astronomi ab tënk bu gàtt rek ci eh, yi nga xam ne moom la sunu sëriñ su baax si fi jiitu woon doon wax ñu tudd ko ay ceebu mu nekk ñeenti ceebu ñeenti biddiw yi ndox yoo xam ne ñi ngi jeex ginnaaw boo xamee ne euh, juróom-ñaari biddiw yi ci des yi mujj ci euh, jeew saawu mat nañu euh, nga xam ne fii may waxe yéen ñi ngi ci biddiwu ndox bi njëkk ceebu bi njëkk te mooy càng nga xam ne ñi ngi ko tàmbale woon ca le 19 bee weesu le 19 juin lañ ko tàmbale woon kon day mel ni juróom-ñaari fan yu njëkk yi jeex na mag ñi nag tàmmoo nañ lool mu taw ci caatum càng wala taw dabaraan yàlla dogal na nag ci caat mi la taw caatum càng tàmmoo nañ lool bu ci tawee surtout suñu gox bii fii ci euh, bawal rawat na fii ci Touba ak li ko wër yëpp rek tàmmoo nañ ko ci lool ci neer bu mel noonu ndax barke bañ cee séentoog moo tax lu waaye am rek ba boo nga ji ko te xam ne moom euh, liñ gi a rafet njot mooy ne bi dana barkel te dana baax incha allahu rabbi te itam dana bari jàmm euh, kon ci caat na taw ndax ci juróom-ñaari yi ci fan bi njëkk ci la taw ndax euh, démb la woon ajjuma ci guddi samedi la taw kon loolu mag ñi taamu woon nañ ko lool kon ñi ngi ci ndax ceebu yu ñeent lañ bu ci nekk fukki fan ñeent ngay diire soo ko boole muy cinquante six jours mooy juróom fukki bis ak juróom benn kon ñi ngi ci càng ñi ci juróom-ñaari fan mujj yi taw na bu jeexee dabaraan moo ciy topp moom tamit fan ak lay diire su jeexee dékk moo ciy topp anaata mooy ceebu bi mujj bi moom mi ngi jeex benn fan ci waxset waaw moom foofu lay yem darñeel ceebu na muy anaata nag bu ca maanaam bu ca bu ca bu bu demee ba anaata jee mu masal nawet bépp nawet boo xam ne dem nañ ba nga xam ne ceeb bu mujj ba jeex na fa mi jeexee ca tawagul wala mu taw ca nawet boobu moom la moom la mag ñi daan tuddi nawetub xar baax moo su moo tax sunu sunu sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikh Abdoul Ahad Mbacké am na ci waxtaan bi da koy dégg mu ne li nga moom jeex na fi mu xar nawetub xar baax moo fi des fekkoon ñu dem ba nga xam ne Euh, anaata mooy ceebu bi mujj ci ceebu yi di jeex te tawut wala mu taw ci mujjantal ga ndax moom ci benn fan wax set ci lay jeex waaw ndax dafa am lu ñu tudd ay weeri biir weeri biir yooyu bokkut ak ceebu yi weeri yooyu ñu ngi tàmbali par la euh, par la quatorze bu nekk di jeex la treize bu nekk kooku mooy weeri biir yi ñu tudd weeri biir yi mag dañ koo date woon ci calendrier xamari bi te mooy atum jullit ñi bi nga xam ne moom at mi boo ko seetee trois cent cinquante quatre jours lay doon léeg-léeg nag mu nekk trois cent cinquante cinq waaye ci kaw jant bi soppi ko ndax ñaari calendrier yi euh, euh, juróom-ñeent ak fukk rek la ñuy rawante lii ne bi am na ñu ñi lim fukk ak benn dañuy limaale bis bi fii fii bàyyi juróom-ñeent yi ci biir mu jox leen fukk ak benn loolu mooy mooy kii waaye juróom-ñeent ak fukk rek la fi ne calendrier jant bi trois cent soixante cinq suur la ak ñetti bis xaaj ñetti yoon muy ñetti waxtu lay tegal ak ay minute ak ay seconde soo xamee ne calendrier jant bi nekk na trois cent cinquante trois cent sour ak bis bu ñu xaaj ñeenti xaaj kon juróom-ñeent fan la koy rawee calendrier xamare bi dafay nekk trois cent cinquante quatre jours moom tamit ak bis bu ñu xaaj ñeenti xaaj mooy was wasdaadu tishan bañ ko jàngee ci alquran ndax calendrier at jant bi dafa ëpp at weer wi daf koo raw cent année yoo jël ci calendrier jant bi moo da jox cent trois ci calendrier xamari bi te mooy hijri bi ñuy wàññi ba tey ci biir wàññum hijri boobu na nga xam ne ci lañ tate ati jullit atum jullit ñi ci la mag ñi génn daan sukkandiku ci weer yooyu waaw sukkandiku ci daal di koy tudde ay weeri biir ay waxset ak ay satambar ak ay solet ak ay nangam ak nangam xeet yooyu weeri biir yooyu tamit mi ngi tàmbali la katoos bu nekk lay tàmbali jeex ci la treize ca weer wari waaw ci biir weeri biir yooyu tamit ñu fexe ba génne ci ceebu yii nii te ceebu yi mi ngi tàmbali comme noonu parce que cinquante six suur lay diire juróom fukki bis ak juróom juróom juróom benn moom lay diire bu ci nekk quatorze jours la bu ci nekk quatorze jours ñaari juróom-ñaar léegi nag ñu ngi ci càng ci dernier bi ci juróom-ñaar yu yi mu taw ci fan mu njëkk bi tàmmoo nañ ko waxoon nañ ko muy lu am solo te mat di mat di bàyyi xel ndax yii ñooy bidiwi ndox yi naka tamit euh, taawub da baraan ma ñi tàmmoo nañ ko mooy bu juróom-ñaari fan yi jeexoon mu na mu door taw ci premier bis bi njëkk ci ci ceebu dabaraan ba tey tàmmoo nañ ko yii ma ñi tàmmoon caat mi caatum càng ba taawub dabaraan yàlla dogal na taw na ci caatub càng même bu tawoon ci euh, taawub dabaraan ba tey day baax waaw mu desaat baneen nag mooy caatum anaata anaata bi nga xam ne moo mujj ci ceeb yi fekkoon dañoo dugg ci juróom-ñaari fan bu mujj bi rek mu taw ci bis bu njëkk ba nga xam taw ca caat ma ba tey neer boobu moom ba tey newetu barkeel lañ koy tuddee dañuy wax ne maanaam ndox mi mën naa bañ a bari li muy taw du bari waaye neer ba day nangu waaw neer ba day nangu bu ñu ba nga xam ne càng jeex na te tawut dabaraan jeex tawut dékki ñëw tawut ñu dem ba ca anaata ba juróom ñaar fan yu njëkkee jeex juróom-ñaari fan yu ñëw nga xam xool ñëpp a ngi tiit yàlla doog mu tawti ci fan bu njëkk ba wala ci ñaareel fan ba ba tey nawet day barkeel maanaam ndox mi mën na bañ bari <clears throat> li muy taw mën na bañ a bari mais day barkeel nawet bi loolu tamit am na. mooy xeeti xam-xam yoo xam ne ak yeneen ak yeneen xañ na danañ ko gën a yaatal ci yeneen i jotaay incha allah rabbi di siyaare ñëpp di ñaane ñëpp jàmm ñaan suñu mu def nawet bi barkeel te ànd ak tawféex te ñu muurloo ko suñu borom mosoon ci lépp luy yàq am nawet te defal ñu ci newet bi barke kon mi ngi taw fii ci euh, Bawal ñaar fan ak juróom benn ci weeru juin euh, euh, deux mille vingt et un atum ñaari junni ak ñaar fukk ak benn ci gana yonent yàlla Aïcha jamono alayhi salaam ci li ñuy date ci calendrier jant bi donte jant bi moom jiitu woon na fi loolu waaye comme date calendrier bi nii rek ba tey mi ngi euh, euh, euh, taw ci <clears throat> ci weeru sil xiqda ci weeru sil xiqda ci guddik fukk juróom ci la taw guddi fukk ak juróom ca mujjantal ba ndax tey jii la fukki fan ak juróom ci weeru sil da kon mën nañ ne ci la taw ndax daanaka bi muy taw ak bi fajar jot jamono boobu rek la waaw tàmmee na ko avant fajar mais bi muy jeex fekk na fajar jot kon ci fukk ak juróom bi ci la taw bay muy fukki fan ak juróom ci weeru sil xeqda mooy weeru diggu tabaski mille quatre cent quarante deux ci calendrier weer wi ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar bésub gaaw mooy samedi yàlla na suñu borom def jàmm ci réew mi euh, fajal ñu ràggi xol yi ak ràggi yaram yi ubbil ñu buntu xéewali ak barke yi Sëriñ Tuubaa daana wax ne barke comme xawal dafa mel ni xalu sawara loo ci laal mu doy kon yàlla na barke bi wasaaroo ci réew mi dam ko ñaane woon ca xasidaam ga ca euh, muqaddimatul xidma fi salaati ala nabi rahma aw miftaahu shahaada fi fi salaati ala xari shahaada wansur bi jaahi barakaati fil barri wal bahri yàlla na daj Sénégal daj Afrique daj fépp barkeb Seexul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu